giraawaali yoo xam ne maanaam doy na waar lool journal bi ne li nga xam ne mooy personnel bi maanaam ñi nga xam ne ñoom la ñu jëloon ñu liggéey ci mairie bi ci atum 2019 tolloon nañ si 58 waaye nag jamono ji ñoo ngi ci 116 maanaam juróom fukk ak juróom-ñett ñoo fa doon liggéeyee waaye jamono ji yokk nañu ko ba ak fukk ak juróom benn loole nag doy na waar jégg na dayo journal bi ne li nga xam ne moom lañ leen doon fayee bi ñu ko xayma 2019 maanaam 117 millions na waar journal bi li nga xam ne moo doy waar ci mbir mi na ñoo xam ne ñoo ngi leen doon fay ay salaire te liggéeyu ñoo lépp lépp bi ñu ko xayma lu toll si ñaar fukki nit rek ñoo doon def liggéey ba te nag ñi nga xam ne ñooy employé yi maanaam 106 emploi la waaye nag ñi nga xam ne ñooy liggéey daal 20 personnes la ñi si ñëpp dañ leen doon fay xaalisu mairie bi te liggéeyu dara xam ngeen ne loole nag njombe la xam ne Babacar Diop moom ci boppam ah, nee na ci boppam daf koo jaaxal ni nga xam ne a jota xayma woon mairie bi recouvrer recouvrement bi bi mu dikkee maanaam neuf cent quatre vingt la te lépp waroon a nekk trois milliards trente-trois millions yéen a kaay gi ne na carburant bi nag nañu ko doon yàqee ak di ko saax-saaxee ci mairie bu cees loolee ci boppam nag moo doy waar ndax fukki weer yi lu toll ci soixante-dix millions jënd nañ ko carburant te carburant boobee waa fan lañ koy dugal te nag moo ne ñetti oto rek moo nekk ci mairie bu Thiès fukki weer yi maanaam dépensé nañ si lu toll ci soixante-dix millions loolee bëri na loola ñi nga xam ne nag ñooy waa Sonatel ak yeewoo ñoom espace bi nga xam ne moom la ñu luyee mu toll ci mille mètres carrés weer wu jot téeméer rek rek rek la ñuy fayee weer wu jot daal maanaam Sonatel day génne téeméer fay CBAO génne téeméer fay ci espace boo xam ne toll na ci mille mètres carrés yéen gi ne na ñi nga xam ne nag ñooy waa EMG automobile ñoom nag ñoo jël nag li nga xam ne mooy congolonko gi ndax waa EMG automobile ñoom 2014 ba léegi amul benn 15 dërëm boo xamante ni fay nañu ko surnal bii di L'As l'Observateur quotidien nee na Babacar Diop daal wane na giraawaal ak njombe yi nga xam ne moom la Talla Sylla def ci mairie bu Thiès yéen a kaay gi di ko di cee ñu xëy fekk a fa Antoine Diome ministre de l'intérieur moom nag ñaawlu na bu baax a baax maanaam song yi nga xam ne nag ñoom Ousmane Sonko ñoo ngi koy song direction générale des élections ñaawlu na tamit song yi nga xam ne waa coalition Yewwi Askan Wi ñoo ngi koy song waa société civile bi Antoine Diome moom nag nee na war nañoo bàyyi structure état yi nga xam ne dañu leen di song waaye tamit nee na bi bu waree li nga xam ne nag mooy loi du si layaam layaama la yéen Touré nee na Guy Marius Sagna waa Fra France Dégage ak Bougane Gueye Dany ñoom nag jamono ji woo nañ force vive nag ñu mën a jàkkaarloo ak Macky Sall mu bàyyi nag njombe yeeg giraawal yeeg jaay doole gi nga xam ne moom la Macky Sall nekkee ci réew mi yéen kaay gi du Source A nee na nag conseil bu dee ni nga xam ne moom la doxalee woon 2019 ci mbiri Malick Gakou ci lu jëm ci parrainage bi na ca conseil constitutionnel doxalee woon bu ko doxalee ci mbiri Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi Macky Sall ak ñi moo àndal duñ bokk te loolee mooy A nee na ne 13 janvier 2019 conseil constitutionnel ñoom nag dañoo bindoon Malick Gakou xamal ko na ko yow lu toll ci 66 820 parrain lañ la laaj te yow Malick Gakou andi nga lu toll ci 67 842 na ko yow Malick Gakou nag da ngaa ëppal comme nag da ngaa ëppal jalgati nga loi te nag loi bi soo ko jalgatee yow Malick Gakou munoo bokk ci élection yi journal bi nee na lii mooy dëgg moom source am mooy wax nee na en tout cas li ba desal te Sénégal yi war koo xam bu dee conseil constitutionnel ni mu doxalee woon ak Malick Gakou janvier 2019 ci présidentielle yi moom la doxalee ak Benno Bokk Yaakaar ci élection législative yi kon waa Benno duñ ci bokk waaye nag dogal boobee bu ko conseil nag jëlee Macky Sall dina ci kontaan wala nag dafay forcing maanaam jaay doole comme ni nga xam ne moom la ko defee wala ci élection locale 2002 ndax élection locale 2002 Macky Sall moo dem ba Fatick yorul carte d'identité xam ngeen ne kon warutoon a voté waaye Macky dafa jaayoon doole voté journal bi na maanaam musiba gu doy waar a naa am ci jëm ci wàllum courant bi su dee bu Sénégal jëlul yenn matukaay yi maanaam njombe mën naa am de ñi nga xam ne nag ñooy syndicat yi nekk ci Senelec waa Sutelec ñoom Habib Aïdara ñoo ko xamle ma ngi ci laas yéenekaay Birahim Seck moom nag dal na ci kaw OFNAC ndax nee na OFNAC nag bii nga xamante ni dañ ko fee teg ngir nag muy xeex lépp loo xam ne jëm na ci wàllum corruption nee ma guerre moom si boppam loi ko mu autosaisir waaye nag bu dee xam ne ñuy waa OFNAC dañuy fas seeni loxo te nag milliards yi nga xamante ni dugal nañ ko ci pool urbain bu Diamniadio ak milliards yi nga xam ne dugal nañ ko ci centre conférence Abdou Diouf loolee Sénégal yi dañoo bëgg am lu leen si leer te waa OFNAC ñoo leen ko war a leerala la waaye nag moom Birahim Seck ak waa Forum Civil nee na ñu ci atum 2021 bi bëri na ay marché yoo xam ne manaam gré à gré lañ ko joxe ay marché yaa ma neexa journal bi nee na loolee corruption la te nag marché yooyee ñu ko xaymaa toll na ci 728 milliards yéen a collectif Rewmi Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yi ak nag député yi bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu leen si doon tudd bi wadd na dikki démb Mamadou Sall tëj nañ ko lu toll si juróom benn weeri kaso Boubacar Biaye ñu tëj ko lu toll si juróom benn weeri kaso yu muy tëdd El Hadji Diadji Condé mi nga xam ne nag mooy cerveau bi maanaam mooy ndayi mbili gi moom lu toll ci fukki weeri kaso la ñu ko tëj yéene kaay gi di xam ne moom la ñu wax ne moo jëli woon Adji Sarr jaar ca nag salon ba moom nag ni ki démb déglu nañ ko doyen des juges déglu nañ ko waaye nag bi ñu ko laajee moom daat nay wax nangu na ne gisante na ak Mamour Diallo nee na xamul maître Dior Diagne journal bi du l'Observateur nee na Aïssa Ba alias Mama moom tim mooy beneen masseuse bi moom tim ni ki démb déglu nañu ko waaye nag tenue yi nga xam ne moom la Adji Sarr waxoon na clients yi dañ koy sol loolee nag Aïssatou Ba Mama daat na koy wedd wa nee na la doon doxalee moom musu koo doxalee a kaay di estat